mbokk yi ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci sangu sang yi ñaan leer ak ngërëm ak barke di dott ko ci suñu yaakaar tey ëllëg suñu xutba tey bi ñi ngi ko jëme ci ab jullit nu mu war a mbokkum jullitam ak ab jullit nu mu war a mbokkum jullitam jullit dafa war suuturaal mbokkum jullitam di moytu di waxtaane ay ñaawteef jëme ko ci mbokkum jullitam wala muy tudd ay ayib yu jëm ci mbokkum jullitam wala muy gëstu di topp awray këru jàmbur sa mbokkum jullit ngay seet la këram na muy doxe di fa seet fa jubut nga xam ko ngir tasaare ko loolu ab jullit war na koy moytu ndax am na ko bokk ci gaa yu baax yu njëkk yi koo xam ne nee dafa gis na aw nit ñoo xam ne si amuñ benn ayib waaye ñu ngi tudd ayib nit ñi ñooñu itam di tudd di mujj may nañ te tudd gi ñuy tudd ñu amuñ tudd gi nit ñi ñi di fay yu day mujj ñu mel ne borom ayib lan mu ne waaye itam gis na nit ñoo xam ne itam danoo fees del lekk eh, ayib waaye fegu nan ba duñ tudd ayibi kenn tax na nit ñi fàtte seen ayib yooyee ba mel ni amatuñ ayib kon nag di tudd ayib nit ñi dana tax nga ami ayib waaye ñàkk gu tudd yam dana tax doo amati ayib am na tëkk yu baree bare yoo xam ne wàcc na ci képp koo xam ne yaa ngi dox ngir siiwal ay ñaawteef ak rëcc rëcc yoo xam ne daa dal ab jus nga koy taxaare ak di gëstu awray nit ñi ak seeni ayib di ko waxtaane mbokk yi yonent bi sallallahu wax na ne képp koo xam ne yaa ngi suturaal yaa ngi suturaal awra sam mbokkum julit yàlla dana la dana suturaal sa awra bis pencee bu yamal xiyaama waaye képp koo xam ne yaa ngi wuññu awray sa mbokkum julit yàlla dana wuññi sa awra ba gàcceel la fii ci àdduna nga sooylam àllaxira kon nag nañuy muytu di gëstu mbiri jàmbur ak di ko wisaare ak di ko tasaare yan wisaare sama waxaa na ne képp koo xam ne yaa ngi suturaal ak julit yàlla dana la suturaal ci àdduna dana la suturaal ci àllaxira am na hadis boo xam ne abi borda moo ko wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne yéen ñi nga xam ne dégg na ci seen làmmiñ te ima te gëm googu dugg seen xol maa ngi leen ngeen bàyyi jëw seen mbokkum julit ak di toppatoo away seen mbokkum julit ak di toppatoo ayibi seen mbokkum julit ndax képp koo xam ne yaa ngi xëy di gëstu ayibi sa mbokkum julit ak i awraam yàlla moom it topp say say xam nga da nga daan laa ko toppatoo ak texe nag ñëpp ñeen la képp koo xam ne sa ayib da doy sëkk wala si nga gëstu ayib nit ñi kooko texe ñaan ak kee kon sa ay bopp nga lijjanti seet noo ko saafara noo ko dindee wala si ngay lijjanti ay bi jàmbur yi waaye texe itam ñeel la ko képp koo xam ne yaa ngi xool sa xool kaneen ak di xool sa bopp noo leen teg ci yoon ak noo koo xam ne yaa def loolu texe ñeel na la texe ñeel na képp koo xam ne boppam moo ko soxla soxal soxal lépp lu loo xam ne dana ko jariñ jariñ ak njabootam tere nekk waaye koo xam ne yoram néew ci mu génn ci kuy def loolu texe ñeel na la texe ñeel képp koo xam ne falastrono borom yamale ngay yem doo weesu xuduud waaye doo jëfitam mukk ngir tasaare lu ñaaw ci société bi képp koo xam ne lu ñaaw doo ko jàllale fenn kooku texe ñeel na la képp koo xam ne doo ñaawal sa moroom julit moo xam ne mastoorul àll yàlla daf ko suturaal yow nga wër nga yéen gëstu ba xamal ko lu rafetut nga di ko tasaare képp ku def loolu sama borom daan la mbugal waaye képp koo xam nag doo tasaare mbirum doo gëstu mbirum kenn waaye da fex ba doo kenn soo làmmiñ itam doo ci wax lu yiw doo ci wax lu yiw lu yiw kooku yiw rek bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne wala tajassasu wala taxassasu ay albaxsu an mahaayibi nnaasi wa ahwaalihim littaxaddusu anha bu leen di gëstu ay bi nit ñi ak mbiri nit ñi di ci rafetul ngeen di ko waxtaane ci mbooloo mi loolu kat bokk na ci jikko yi gën a bon gën a ñaaw bokk na ci daraja yi gën a suufe ci doomu adama kon nag nañuy moytu di gëstu loolu moo tax yàlla wax ci alxuraan yaa lazina amanu ijtanibu kasiiran mina zanni inna ba'da zanni ismun fala tajassasu wala yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla na ngeen moytu lu bare ci njort yi ndax bare na lu nit ñi wax ci nit ñi ci lu rafetul bari na lu ñuy ñuy wax ci ay bi nit te ci njort rek lañ koy teg ay amu ci lu wér kon nag nañu mooy ci njort waaye nan nañ muy ci di gëstu mbokk yi moo tax dama yaakaar tey seen xadim bi waa demee ci naa wax na jox ala alxaaj mi wax waa takun multafitan lil asharat bul nekk di gestu di wër pakk-pakk yi nga xam ne mooy pakk nit ñi wa wala tubahis ahadan abadan xan awrat bul gëstu mukk awre nit ñi ay bi nit ñi bul gëstu am fu mu waxaat ne bul sàkku xam ay bi ñi nga xam ne ba danga ko suturaal nit lam nëbbu bu ko jéem a xam mukk ndax boo ko defee fayatika allahu sitran dee jéem a xam sutura nit ñi di ko di tasaare de yàlla moom dana xotti sa sutura waskuru maxaasina ma fihum ida zukiro booy tudd it seetal la rafet ci moom nga di ko wax rek waaye bul xëyibal kenn bul wax xëyibi kenn am ko waxaat ne uhibbu makaarima al axlaaqi joxdi wa akrahu an uxiiba wa an uxaaba man de jëkku makaarima al axlaaq rek laa bëgg ci lay xëy di ci gontu waaye ku bañ laa nag di ayibal kenn waaye ku bañ laa ku may ayibal mu ne na ngay dëddu nag di ŋàññi nit ñi ndax ki yées ci nit ñi mooy ki nga xam ne day seetlu ñaaw di ko wax ci dorob ab nit mu ne képp koo xam ne sonk nga gaa yu baax yi gaa yu nit ñi dañ lay fonk waaye képp koo xam ne yaa ngi xeeb gaa yu baax ñi di leen xas kenn du la fonk kenn du la tagg am koo xam ne dafa tax wax ne ida siita an tuxyaa wa diinuka zalimun wa wa xirduka zayinu boo bëggee dund am diine ju mucc am ab cër bu yaatu sab sab der ñoom fexeel ba soo làmmiñ bu ci tudd ayibi kenn ndax kat xamal ne fa indaka awratun wa nga xoole ba tax gis ci nit ba tax nga ko tudd xamal ni am ngay ay bi itam de ci nit ñi itam am noonu làmmiñ koo wax sa ayib mu wax la sa ayib kon nag boo bëggee mucc bul tudd ayibi kenn wa in absar aynaaka ayban fa fala tafsiri bool sa bër ci nit ayib nga ko bul xool sa bët bi la ko wan ne ko gëmal ndax kat ne ko yaa aynu linnaasi aynu bët sama bët bi la wan loola ne ah li nga ma wan ci nit ki kat kaw ma am na bët yoo xam ne mi ngi may xool te mi ngi ko gis ci man kon nag bul xool ay bi kenn mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa ku ñuy soññi la ci faj aajoy sa mbokkum jullit sa mbokkum jullit mu am soxla nga taxaw ci soxla soxla ba mu faju ndax loolu min min tahaawuni ala al xayri wal birr moo tax yoon saa wax ne wallahu fi xawni alhamd ma kaana alhamdu fi xawni aqihi yàlla mi ngi ci dimbale ab jaamam fii nit yaa ngi dimbale sa mbokkum jullit yàlla di la dimbale mu waxaat na man kaana fi aajati aqihi kaana allahu fi aajatihi képp koo xam ne yaa ngi dox ci aaja yi sa mbokkum jullit yàlla day nekk ci sa aajo moom kon nag na ni dimbalante ba sa mbokkum jullit foo jege aajam nga dem jàppale ko ci mbokk yi am na hadis boo xam ne ibnu Umar moo ko wax radiallahu anhuma mu ne wax ne afdalul ahmaali idxaalu sururi ala muminin li gën jëf yëpp li ci gën mooy nga fexe ba sa mbokkum jullit nga bégloo ko bégloo moo xam danga jox ko daay lu mu mën a sol moo xam ne fa nga jox mu xiif nga jox ko mu lekk wala mu am aajo nga fayal ko aajo ji kon bégal sa mbokkum jullit lu am solo la kon nag képp koo xam ne yaa ngi dox ci aajo yi sa mbokkum jullit di ci def say waxtu wala di ci def sa daraja wala di ci def sa alal ba am lam bëgg yàlla dana la jàppalaal yow itam sa mbir yëpp te dana faj sa aaju yëpp kon nag dañuy jàppalante bu baax a baax mbokk yi ñu xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne mooy suñu royteef ci lu baax mooy suñu royteef ci ci njëkk mooy suñu royteef ci jub daf daa wuutu jullit yi seeni ñañ di leen taxaw di faj seen aaju bari na mook ak mboolem saxaaba yi seen mbokk bu mu masaa tukki baa mu génn baa mu wéradi dañuy dem ci njaboot ga di leen jàppale di leen taxaw di faj seeni aajo am na ñoo xam bintu xabaab ibnul art wax na ne seen bàyyi xabaab bi mu génnee yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa leen daan nemmi ko bu dikkee ci kër gi bay yi nga xam ne moom la seen bàyyi yoon yonent bi day dikk di leen ko ratal dafa leen ko pot bu dikkee tedd ngay yonent bi salaasa ak baaxam tax na béy wi dee bari soow loolu bu dikkee duyal leen bu sëddee ñëw toppatoo leen taxawu leen ngir faj seen aajo la nekk ba seen bay ñibbisi waaye bi seen bay ñibbisee ba tàmbalee warat nag ba yow delluwaat na meloon soo ma wàññi waat ndax ka ko doon natt mooy yonent bi salaasa kon moo daa jug di taxaw bokkum jiit beneen jullit rawatina kon nag nañuy tax jàppalante bu baax di dimbalante ñu nu ko yàlla digale ci alquran wa taxaawano al birri wa taqwa wala taxaawano al ismi wal udwaani mbokk yi ba ba ñu sant bu baax di ndokkeel mboolem taalibi yi nga xam ne xam ngeen ne fan yii danoo nekkoon ci sotti teg bi ba bari na kilifa yu bari ci yoon wi doon woote ngir nit ñi ñëw jàppale ci liggéey boobee nit ñi nag wuy si ne ni ci anam nga gën a rafete woote bu ci na rek mbooloo ma fa daa teew ñu fa teewee moo ko ëpp foofu ten ànd ceeg pas-pas ànd ceeg mbégte ànd ceeg cawarte ngir yàlla ak jëmi Sëriñ kon nag ñu leen ci sant bu baax te leen xamal ne noonu rek la de liggéeyal sëñ bi rek moo am njëriñ te tool yooyu ñuy liggéey yooyu yëpp de li ma ci xam yëpp lan fa bay ci dugub ñàkk fa bay dara du ci dugg seen kër lépp dañ koy def addee sëñ Touba jox ko ki fee nekkal sëñ Touba ak njaboot sëñ Touba bi kon nag képp koo xam ne yaa ngi ànd ca liggéey boobee day mel ne kilifa gara ci war sa daa dimbale ndax bokk nga ca liggéey boobee kon nag ñu ngi ciy bu baax a baax mu mel ne fan yi dañ doon dégg sax mbokk yoo xam ne ñi ngi doon jéem a yàq pas-pasu murid yi ci liggéey yi ñuy woote di wane ne kilifa yéen fu woote taxawaay bi ñu war a am ci ñoom taxawuñ ko loolu nag xam naa aw gisinam la waaye wala dafa demutoon ca tool yi moo tax mu gis noonu waaye bu fa demoon xam ne. taxawaay bi nga xam ne kilifa yi war nañ koo taxaw bokki taal bi nekk ci liggéey tool yi ñu koy def bu baax a baax te yaakaar na tam ne xëy na nit àll yi ñoo nekk ci tool boo demee ci tool yi léegi daanaka nit sax ñoo ci ëpp ndax bakki dem rek tool yi ma mujj Darou Salaam bi gis naa fa ñoo xam ne ay licencié lañ ak i master un ak i master ñoo xam ne ñu ngi woon ci liggéey ba weekend bi lan amoon jot jànguñu ñu waroon nopp lu ñu ñëw am fa ñaari fan te tool ya kon nit ñi Sëriñ Tuubaa rek lan bëgg moom leen gëm dama ci gën a yëm nag ba bay tàggoo dama caa koo xam ne dana ko ñaan ma nekk président de la république loolu dox say am kon nag xam ngeen ne ñii wuy si ca tool ya doonut ñi nga xam ne ñooy waa àll bi rek waaye nit taax yi itam ñu ngi fi ñëw ndax xam nañ ne aw yiw rek fa nekk aw yiw rek lañ fay jële ku fa ñëw ku ne boo delloo danga xam ne defoon nga lu ko mat sëkk ndax ki ngay liggéeyal kat moom mooy sunu boroom du jaabatle du naxaate du tax yaakaari kenn lu fa waay da nga ko gis kon nag ñu ngi cee ndokkeel bu baax a baax ñëpp te ñaan suñu kilifa yi nga xam ne ñoo doon woote yàgg ko woote yàgg leen di wuy si fattaqullah ibadallah wa tuuba ilayhi tawbatan nasuha a min alsambi kaman la zanba lahu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ وعاونا وكن لنا وحب لنا